donc euh, daf nañ caravane nationale boo xamante ni organisation société civile yëpp di liggéey ci lépp lu jëm ci environnement ak euh, changement climatique jaxasoo yi nga xam ne ni ni ni ni ni jaww ji meloon melatu ko léegi donc caravane boobu nag euh, Oxfam initié ko ànd ceeg organisation société civile yi nga xam ne yëpp ñu ngi liggéey ci environnement ak changement climatique wër na Sénégal dem nañ ci juróom-benni gox ñi ngi ko tàmbalee ci Médina Yoro Foulah ci Kolda Euh, ginnaaw gi ñu jàll Kédougou dem delta di Saloum euh, dem ci Petite Côte bi dem Ndar Saint-Louis mujjee ko tey chi ci ci ci njeexital bi fii ci Rufisque ak ak Bargny boo demee Médina Yoro Fula foofu ni ñuy daggee àll bi nga xamante ni nii euh, da nga daan gis àll bi nu mu lëndëmee léegi tey nañ garab yëpp di jaay moo fa fa jafe-jafe loolu aussi nekk cause ci changement climatique

Euh, Il y a jafe yi am changement climatique lolu lañ fa wax Petite Côte bi mom dañoo waxtaan ci lepp lu jëm ci tourisme ak changement climatique notamment ni ñuy ni tabaxé ci pegg géej gi aussi lepp lo xamné tourisme euh, dina koy utiliser té mëna am euh, jeexital wala mu mëna a so changement climatique lolu lañ fa waxtané ndar biñ fa démé ñi ngi démon séti yi nga xamné ni nii géej gi moo nangu seen kër fofu timin ñu waxtaan ci nan lañuy gëna gën yoké dig bi waaye nan lañ koy gën a kawelee ba nga xam ne dana protéger euh, ñu nga xam ne ñu ngi ci langue de Barbarie waaye dana protéger sax île bi Saint-Louis de manière générale euh, tey ñi ngi fii ci Bargny euh, ak Rufisque fii tamit ñuy waxtaan ci érosion côtière mooy géej gi ni muy ni muy duggee ci suñ suñ dëkkuwaay je que fii jafe-jafe yooyu moo taxoon sax ñu defar digg bii nii ginnaaw bi géej gi duggee ba ñëw ci armée yeeg jafe yi mu mu nekkoon lu métti ci at yi passé donc fii liñ la ñuy gën Euh, yan moyen lañ wara tek pour que érosion côtière bi monam géej gi ni muy avancé mu mu am luñ protéger mu am lo xamanteni ni dina ñàkk askan wi ba jafé jafé yoy du egsi ci ñom di len di len indil ay ay tolof tolof ci seen dëkkuwaay ak sen dundit donc motax ñuy ñaan ñu gëna yaatal dig bi waye ñu gën ko yëkëti waye timit dig bi euh jël code bi yëpp ba nga xamanteni ni bo régler problème mu Bargny du bo régler problème du fisc du continuer di nek problème mu Bargny Música